bis bi ñuy waajal nag bis boo xam ne ndigalu Sëriñ Tuuba mooy màggal di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fête indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee mooy bis bu rëy ñëw Sëriñ Tuubaa santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci bis bii yàlla def nag ci ñaar bu ak liggéey bu tedd ba màggal gi dem ba agsi fii ndax bisu ak pay la ndax na mu ko digle woon daale ci dem ci daale bi yëpp nag seenu xeer tax màggal gi àgg fii tey ba waxatuma la lañ ci yaakaar te mooy li ëpp solo te mooy ko tax a jóg di wàllu ruux lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg yàlla lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg Sëñ Tuubaa ci pay waaye ci wàllu àdduna mu dem ba nekk li ëpp doole ci waxuma réew mi waaye ci Afrique wala li ëpp doole sax ndaje yi ëpp doole ci adduna ma ne soo ko caay bare muy dugal lu baree bari itam ci wàllu koom-koom muy loo xam ne réew ñëpp lay jëriñ kon li ngeen tudd relancement économique Màggal Tuubaa moo moo ci jiitu ndax mën naa ne li ëpp ci nit ñi wala société yu mag bu ñu amee lu ñu bëgg a jaay dañ koy xaare màggal gi ngir barkeelu bis bi kon nag yàlla def Seex Mahmoud ci sañ a benn jéego ci lu bi itam du laaj ndigal day toog ba jox kon ñun li ñu war mooy toog sëriñ bi bu sëriñ bi santaane ne jox naa leen ndigal ngeen wéyal liggéeyu màggal gi ngeen ko defee ci lañ doon a tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def am na ci ndaje moo xam ne jàll na Serigne Ousmane moo ko jiitoon woon ni mu ko baaxoo defee ci ànd ko préfet bu Mbacké ñu def ko nañ ko nañ ko waroon a defee séntu ci it lañ ci daal séntu te ji itam gouverneur taxawalaat ko ci ndigalu kilifa bi nga xam ne ñoom la fi teewal tàmbulee ko ci ministre de l'intérieur moom bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu taxawal ko moom itam mu def ko nag ci ndigal président bi nga xam ne ci ndigalam la ko defee kon ñoom ñu ngi lay ñu di rafetlu jotaay bi itam ñu ngi di ñaan itam ñu àgg ci màgg ak jàmm te suñu doom dimbali ñu mboolem li ñuy tiit ak li ñuy ragal yàlla mosuñu ci.